Ahmadiyya, ESLD, Jamon. Ahmadiyya, la vision future. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ونعوذ بالله من زلغات اللسان ومن مفاسد الجنان الحمد لله القائل في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل إنما بعثت معلما وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا منه معالم الدين assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. mbokki Ahmadiyya TV mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di kontaan bu baax di amaan mbégte ci dajawaat ak yéen ci seen émission almaratu fil mujtama'i salih muy la société moderne di ziarahnya pun te di leen baalu xàq di ñaan suñuy di nuyu ki nga xamante ni nii moom la bisa àndal ci émission bi saa su nekk di ziara di kontaan itam bu baax a baax ci seeni abonnement ak seeni aimé ci bi nga xamante ni nii suñu chaîne youtube bi waaye tamit di kontaan itam ci dellu siwaat ak yéen ci li nga xamante ni nii moom mooy waxtaanee li nga mbiru rawatina nag eh, bi nga xamee ni pare nañ tey pour dellu siwaat ak yéen comme niñ leen ko diggee woon bi passé fas yéene wax ak yéen ci li nga xamante ne mooy jigéen ci lan la nekkoon fan la jógee fan la ko lislaam teg yan anam la ko fekkoon ak yan condition la ko delloo si eh, loolu nga xamante ni moom lañu war a waxtaanee nag tax tey ñu tànn thème bi nga xamante ne ni moom lañ fas yéene waxtaanee jigéen naka la ko diine jàppee ndax dañ ko jàppee jigéen kese ci tur wala am na leneen loo xamante ne ni moom la ko dencal ak itam dindi bi diine dindi li nga xamante ne ni moom lañ tegoon jigéen la njëkk lislaam ci ay coono coono yoo xamante ne ni nag teguwul woon fenn fu dul ci seeni bànneexu bakkan ak seeni bëgg-bëgg ah yii nag ak yu ni mel tax ñu waxtaanee li nga xamante ni ñi tey moom mooy jigéen valeur bi ko lislaam jox ñu wax jigéen valeur bi ko lislaam jox te ñu leen jigéen fan la jóg ndax mbokk yi jigéen dafa nekk ki nga xamante ni la njëkk lislaam jàppewuñ ko woon sax muy nit dañu jàppoon ne rek jigéen benn objet la boo xamante ni nii daal dañ koy utiliser

du ci benn côté côté yëpp ci kulli jawaanib demoon nañ ba nga xamante ni ni la njëkk lislaam dañu jëloon jigéen jàppee ko comme mala yi ñuy yar ci kër yi xaar yi nag yi bëy ñu jàpp ne jigéen daal benn mala la rek bu nekk ci kër gi su la neexee rey su la neexee utiliser su la neexee jaay su la neexee yóbbu place sam ngam tëj fa noonu daal la jàppee woon jigéen la njëkk lislaam mu nekkoon nag euh, jàppin bu métti nekkoon gisin bu diis nekkoon itam loo xamante ne nii lu tiisoon la ci ñi nga xamante ne nii ñoo ko doon dund waaye nag tiis bu ñu mënut dara ndax uh, àdduna ñaar la fi yàlla sedd muy góor ak jigéen kon bu ñu nekkee ci société boo xamante ne dañu jël jigéen jàppee ko ab mala rek day daal di metti ndax ña ko ko jàppee du doon ñenn ñu dul ay góor te duñu am lu leen gindi ndax ñoom ñaar rek ñoo nekk ci société bi mu nekkoon loo xamante nag lu metti woon la lool demoon nañ ba nga xamante ne nii euh, jigéen dañ ko daan donn comme ni ñuy den donnoo ay marchandise wala ay ay kër wala ay moomeel yoo xamante ne nii aji dawlu ji def ko ay ginnaaw ni ñuy donnee bagage am yooyu la njëkk lislaam noon lañ doon donnee jigéen maanaam nit ki bu génnee àdduna ni doon doonee saag bi mu bàyyi ni ñuy doonee dàll bi mu bàyyi ak yére bi mu bàyyi noonu la ñuy doonee jigéen ji nga xamante ne ni daf ko bàyyi gannaaw loolu yëpp nag teguñ ko fenn lu dul seen bëgg ak ni ñu jàppee jigéen rek ne jigéen daal moomeel la bu góor moom rek nekkul lenn comme ni ma leen ko waxee léegi mu metti ci jigéen ñi ba nga xamante ne ni daawuñu xam nag naka la ñuy dundee ci société bi. ndax mbir yi metti na amuñu àq amuñu yelleef liñ leen di def metti na ba nga xamante ni demoon nañ ba mettit bi yegg ci mbokk yi bu nit ki génnee àdduna bàyyi benn soxna wala ñaar moo xam te soxna soosu mu bàyyi fekk mu amoon yeneen i mbokki soxnaam yi mu nekkaloon ci kër gi ñooñu am ay doom yu góor doom yu góor yooyu su leen neexee ñu jël seen tànka jooju doom wala ñu jël takk wala ñu jël soxna woo lan moo waral loolu ndax ñàkk décision bi jigéen ñàkk décision ak ñàkk bëgg-bëgg bi mu ñàkk bëgg-bëgg mu metti woon lool ci jigéen ñi ndax amuñu tànneef amuñu lu ñuy bëgg amuñu lu ñuy bañ te siiw na torop xam nañ ko dañuy dégg ñu koy wax ñuy wax que ne bu njëkk ba euh, bu fekkonte ne jamonoy ceddo ya laay wax sax ndax du ma ne bu njëkk jamonoy ceddo ya Euh, bu fekkonte ne jigéen dafa euh, am doom mu nekk jigéen ñu ne borom kër gi dafay mera meram mer ba li muy def ci boppam ñaar lay doon ban façon rey la koy rey ndax dama ko war a rey direct wala dama ko war a suur rek bàyyi ko mu dee mu nekkoon lu metti ndax jàpp nañ ne daal jigéen juddu ci kër mooy gaaf bi gën a bon ndax jigéen ci boppam daal gaaf la li annal fatayat ci umum jigéen ñi ay gaaf lañ ba tax jigéen bu juddoo ci kër daal gàf bu ñëw na ci biir kër gi mu nekkoon nag euh, nekkin boo xamante ne nii mbokk yi métti woon na lool ci jigéen ñi nii la jàppee woon jigéen la njëkk lislaam waaye nag lislaam dafa nekk ñëw daal di jox jigéen valeur awla al islam al mar'a kabiran jox ko valeur bu rëy jox ko yitte jox ko cofeel sedd ko jox ko tedd nga màggal ko ba mu kawe ba tax lislaam ñëw jël jigéen def ko yaay def ko sër def ko doom def ko baay bàjjan def ko tànta def ko maam waaye def ko àndandoo bi gën ci góor def ko ki nga xamante ne nii moo koy gunge ci dundam yépp kon lislaam moo teg teg foofu moo yëkkatee noonu jigéen lislaam moo màggalee noonu jigéen jël lépp loo xamante ni nii daf koy teg góor mu di ko war mu teg ko jigéen mu di ko war pour wan ko ni ko valeur bi nga am mooy valeur bi mu am waaye tamit jël jigéen teg li gën a rëy ci moom muy société ndax su ma li tax ma ne société mooy dañuy wax ne jigéen bu jaree benn nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax al ummu madrasa kon bu fekkente ni defar na benn nit bu baax rek defar na société lislaam dafa jël li nga xamante ni moom mooy yar ak orienté ak jubbanti nit teg ko ci loxoy jigéen mu nekk nag euh, lu rëy loo xamante ne nii dañ ko war di bàyyi xel mu nekk loo xam ne itam waruñ ko tiitaroo mais dañu war a xam ne responsabilité la bu ñu yàlla teg ñu war ko fexe matal loolu yëpp nekk ay tedd nga yoo xam ne yàlla ñu ko xéewale moo tax euh, ñu war a gëm l'islam waaye tamit delloo borom bi subhanahu wa taala cër yi nga xamante ne ni moom la ñu séddee tarale ñu ko ñu fexe liggéey ci ngir yore société boo xamante ne ni bu tedd la ndax euh, société du baax lu dul ne jigéen ña ya fa nekk dañu baax société du rafet lu dul jigéen ña ya rafet société du jub lu dul ña fa nekk ci ay jigéen jub ndax benn jigéen bu jubee rek mel na ne société bi yépp jub na ndax mën na jubal lu baree baree bare ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane na ci teraanga yi nga xamante ni moom la yàlla terale jigéen mu wax ne euh, xadis bi ñu ngi ko jëlee ci abu hurayra radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne xayru bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al fala yuzi jaarahu yonent bi nee na képp ku gëm yàlla gemna bés dina ñëw nga tassé ak mom bu lor sa dekkando waye nak wastawsu bin nisaa i xeyran jigéen ñi ma ngi leen di dénk ngeen ñom def jëflante bu rafet bu baax ndax lan fa innahunna khalaqna min dalain wa inna awaja shay'in fi dala'i a'lahu fa in zahabta tuqimahu kasartahu fa in zahabta tuqimahu kasartahu mune ndax jigéen ñu ngi leen di bindee ci li nga xamante ni moom moo gën a dëng ci faar lañu leen bindee te fa gën a dëng ci faar bi lañ leen bindee mooy fa féete kaw mu ne kon nag bés boo paree pour ne yow danga koy jubbanti rek pour defar ko na la leer ne pare nga pour yàq ko ndax du noonu nga koy jubbantee du da ngay jug rek ne danga koy defar ji kon lan nga war a def mu ne wastawsu bin nisaa i xayran xam leen ne ñii ngeen war a defar ñoom ñoo yore société bi kon jëflante leen ak ñoom jëflante bu rafet ngir ngeen mën leen jubbanti jubbanti bu rafet ndax bu ñu jubee rek mel na ne société bi moo jub loolu yëpp yonent bi wax ko ngir lan ngir bëgg ñu loo xel ni ñu war a terale jigéen ngir bëgg ñu bàyyiloo xel teraanga bu yàlla sedd jigéen waaye tamit ngir xamal ku jigéen ki ni ko du nekkul ne dañ laa bàyyi rek ngir nga war a def la neex ci àdduna fexeel nga bàyyi xel na yow yaa yore société bi te soo baaxee société bu baax ñuy wax ne karamallahu al mar'a yàlla dafa teral jigéen ci alquran nan la ko teralee ci alquran ñu ne yàlla jër na li gën a rëy muy alquran tibb ca lu màgg muy ab saar tuddee jigéen muy Maryam suratul Maryam ñu wax ne yonent borom bi subhanahu wa taala teral bi mu teral jigéen wàccewu ko teggiwu ci tànk bàyyiwu ko ba bi nga xamante ne nii alqouranul karim kenn ku ci nekk génn na la nga ca dencoon ngir ñu dajale ko def ko benn kaamil ñu ne bés boobu ñu ko defaree ba mu jekk ba mu nekk benn kaamil ki ñu ko njëkk a teg ci loxo muy jigéen la muy lan muy suñu ummu naa Xafsa moom mi nga xamante ne nii ci jamonoy aboubacar Sadiq ginnaaw bi nga xam ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam bàyyi ko na fi ne na alqouranul karim bi ñu ko jamaay ba pare boole ko ki ñu ko njëkk a teg ci loxoom mooy ummu naa Xafsa muy suñu yaay Xafsa Aboubacar moom la ko joxoon li yaxfazahu ngir mu wattu ko mu nekk nag tedd nga mu nekk rëy lu rëy loo xamante ne ni yàlla moo ko baaxe jigéen kon nag euh, lislaam fii la fekk jigéen waaye fii la ko yóbbu wala sax mën nañ ne lu ko ëpp ndax li yàlla defal jigéen yépp ci tedd nga mënuñu ko tudd waaye buñ ci tuddee tuuti rek mel na ne ku ci xalaat rek di nga xam teraanga bi la yàlla defal rëy gi mu dina tax nga mën a ji yu bari di len ko wax di ko wax suñu mbokk jigéen ñu fas yéene woon ko waxtaane ak yéen ngir ñu bàyyi ci xel ndax amul lu ëpp àdduna fàttalante li nga ni moom la ñu te mënuñu bokk société bi góor ñi ak ñi di fi dund te ñu bàyyi fàtte wala ñuy bàyyi di wax jigéen ñi li nga xamante ni moom mooy seen place ci société bi ndax buñ ko xamul rek duñu xam fu ñu suñu te bu ñu réeree rek société bi réer ndax ñun ñoo yore société bi loolu nag mooy li nga xamante ne ni moom fa la lislaam fekk jigéen waaye yóbbu ci maqaama yi gën a kawe mu war ko xam ngir bàyyi xel boppam ngir préparer tayam préparer ëllëgam xam ne société bi mu ngi ci loxoom te kenn ku ci nekk ci ñun mu booy ngay jigéen rek xamal ne waree fi yépp mu ngi ci yow mooy lan mooy société bi mbaaxam mu ngi ci sa digg loxo tegu boo ko baaxalee mu baax waaye boo ko bonalee itam mu daal di ah, ñu doon waxtaan ak yéen tey ci li nga xamante ni nag moom mooy jigéen ak naka la war a defee ak société bi waaye tamit jigéen fan la jógee ak fan jëm buñ ko xamewee noonu ñu bàyyee ko xel noonu ñu xaaraat ne nag ñun ñu jóg ci ànd ak yéen jigéen ñi ci li nga xamante ni nii di leen koy fàttali ci li avancé société waaye di leen wax seen place ci société bi màgg gi mu màgg rëy gi mu rëy cër bi ngeen xam fan ngeen war a teg seen tànk ak fan ngeen ko dul war a teg incha allahu rabbi duñu jóg ci ànd ak yéen ci loolu ci seen émission bi nga xamante ne ni moom mooy almaratu fil mujtama'i salih ci seen chaîne bi nga xamante ne ni mooy Ahmadiyya TV di leen ziyaara di kontaan ci yéen ak suivre bi ngeen ñu suivre wasalaamualeykum wa rahmatullah أحمدية هي سنتيدة الجمل أحمدية لا فيزيون فيتور